siyaare. papa mhm. tey dañoo ñëw. waaw fekk mhm. bi. ba mhm. boom am ci. ni bi day waaye moom gàncax bi noo ngi leen di nuyu di siyaare. di leen balaq di leen balaq di ñaan yàlla sama borom yal na yàlla boole jéggal. dana yonent bi ak Serigne Touba. bisimilah rahmaani rahiim barke yonent bi ak Serigne Touba barke Serigne Fallou. ah bi de moom tàmbali bi daanaka fi mu tàmbalee mooy. toog naa ba ay heure yii cinq ma toog fee sama roq bee Basiiru Mbay jóge jiite fekk ma toog mu nuyoog man bu jekk sama doom ju góor ju mag ji toog fee te kippaar gi moog yaayam ñoom man ma man de ah sama mag am naa lu ma soxlaan man ko ah, man ma eh, teere bee féetee ak sama wetu kër day te yàlla dogal fem ne tembe moom dong mu des fa te ji waa kër gi yëpp dafa tuur ay mbalit dama bëggën su fekkee ne yittewoo man nga may ma ko man ko ah téere ba de wax dëgg yàlla mbay xam naa taxan na la ñu wax de moom donc de moo fa des ndax comme kër yi maye naa fa kër yëpp ba mu jeex ah wax dëgg yàlla moom doy na waar man ma ah, ma ne ko waaw man ma de soxla naa ko ndax sama école bi gën a fa ma ko def ko ma ñaan ci dëkk bi nga lànk sama mbaar mi ma ko tegoon ci sama miirum di sax xëy na xëy na ma teggi ko taxat na ci sama kër. te xam nga léegi école bi yàgg fi ma ko waaw ma ne ko waaw la ma ne ko waaw ma ne ko léegi kon man nga koo jël boo demee boo ko mënee bale bale ko ba mu set nga nga nga defar sa sa say say mu daal defar sa kalaas mu dem toog ba am lu mat ay ñeenti fan juróom ba bis ba des mati na bale naa ko ba mu set lépp def naa ko ci biir Kambaya foofu fekk ba foofu lépp kër yooyu fa kër yooyu fa nekk yëpp kër yooyu yëpp man maa moom suuf sax juróom-ñaari kër maye naa ko fa gasam moo ko juróom mu daal ma ne kon dinaa ko dinaa ko embauché naka commencé fondement defar ab ab loolu ab ab kalaasam daal commencé jàngale. classe classe ba ma kii déwén sam nit ñi xëju ca mu daal di defaat beneen mbaar ba mu mbaaree ba mu lu mat fukki fan xëy xëy fekk mbaar bi ñu taal ko mu bàyyi noonu naka ñu ko taal mu daal di continué daal di ne nag lii nag naa ko tabax daal di tabaxaat beneen classe continué jàngale muy 2014. mu commencé jàngale di jàngale di jàngale di jàngale continuer jël ab école am de ku ñuy wax Baara Sarr ca Ndifif moom moom la dem ci moom wax ak moom mu jëlal ko ab elaw ab oustaz ca ginnaaw meewaan jóobug dayaa ñu ko wax bàcc gay mu di ko muy jàngal xale yi moom ci boppam moom bas mu jël xaalisam di fay xale yi de moo ngi di yaayam Abdou Niang muy fay di fay baag mu ne école seen daam bi ci pinc mi yéen da waaye ku fi xam ne xajatoo fi bala neexee nga ñëw saab école mu continuer di jàngale di jàngale di jàngale ba daaw mu toog baag mu def siwaat sama kër fii comme sama rom bii ma sama nijaay ma ne ma ma de laa doon ba tey laay dox man ma alal jàmba di ku ci bëgg foog nga wax ak borom maanaam man ma comme defar naa fa ñaari classe te la fa des mat na classe ñett mat na ñaari classe benn balaa saa xel daa nekk ci dafa jàkk ma ne ko ah def jàkk mun naa man ah loolu da mbay li ngay dox lépp moom ma ci gënal tabax nga ab école arage sama tool ñu looloo loolooti nga defa def jàkka juróom-yaari kër yaa fa may de la nga fa tabax moo ma gënal loolu. man maa ma ne ko waaw man maa fas naa ko yéene du ma dimbalee naka ma toog ñetti fan dellusiwaat fekk ma ci néew ma ne ba ma bëgg dem ba may fondement waa waa dañ ma faa fekk. ne ma yow fi ngay fondement waroo koo fondement jàkka ji ngay defar looy defar mu di jàkka ñu ne ko ah, noonu da ngay den kon ngay defar nga tabax jàkka bu bu bu appel bu ko yëkkati bul yëkkati di biir. daal cee coowoo ñoom coowoo ñoom ba ci ëllëg sa gendarmerie ñëw fi fii ma toog sama kër gi jóguma fi ne sama doom ji boo diggee coowal bu leen toogal ma toog toog ba yàgg mu ñëw ca ni ma saa mag ma naa ma coow la day jëm la ko ma naa ma gendarmerie ne ma arrêté bu subaa nga ñëw Tiwaawan yaa ma ko joxoon dama bëgg ma man ko ah, bisimilah. man ba nga ko koy jox amoon hmm? ba nga ko koy may. Hmm. amoon na ay këyit yu nga xam ne jox ko yéen ñaar ba mu sotti. naa naa def ba jox ay morom laa ko def ba jox ko. kër yi fa nekk yëpp maa ko moom benn suuf la. gorom bi nga ki may ab taawam. ñu doon wax Cheikh Mbaye Diagne laa jëkk may. may rakam ji mu bokkal benn day As Ndiaye mu ne ca Italie ba tabaxal ko. ma may Boussa Diop. may euh, Aliou may muudu Diagne. may Alsane Diagne. yooyu kër maa ko ci suuf si la daanaka boo leen di may doo am pay da nga leen fii amul booba kayit mhm. amul fi benn kër boo xam ne fii am na kayit mhm. da ngay dem rek may suuf ndax foofa sori na ma xam nga maa dëkk fii te foofa laa sori mhm. sama këram gii ci ginnaaw fii ginnaaw gi ma yaakaar ne bu ma leen mayee bu jeexee su ma soxlaa saa kër mën nañu am fii waaye ba ma tourné bu bëgg dem sama kër bëgg fii ku ma ñaan nga lànk kon bu ma xamal loolu du ma maye waaye nag boobu benn kayit amul nii laa ko mayee mu continuer commencé ñu laal dem gendarmerie man demee gendarmerie gendarmerie woonu laaj nu nu wax bi nu waxee bàggal mu laaj ma ma wax ni ko man de maa moom suuf si man ma noo ko ma man ko sama maam laa ko doon ne la sa papa gaañoo ma yor ko di ko béy bënn nga ni samay waa kër yàlla dogoon ñu ne ci àll bi di liggéey man saay bët muuru ñu di ko gas ay kamb guddi di ko gas ay kamb guddi di ko roñ ay kamb guddi ba moom mi nijaay mi ne boo mayul sa suuf si am ci am ci tuyaa bëtam dina jeex lii waral ma commencé di ko maye moom mii laa mujj a may nag maa man ko moom mii laa mujj may man ma kon yaa ko may euh, ci noonu man ko ah, man nii laa ko may nii laa ko may ay moromam noonu laa ko maye moom laa ko maye. ma ne ko nag baax na ana ñi ana ñi ko fi kalaame ma ne ko ah ma ne gisuma leen ma ne kon dem na ñibbi jël appareil bi woo ñooñu woote woote gisul kenn man dem leen ñibbi ba suba gannaaw suba te guba gannaaw suba nu dil siwaat man ak moom ak papa ji ak imam ak. Euh, kii ak euh, man ak moom ak papa ji ak taala ji ñun ñett ñi nongu doo nga fa nekk ak sama doom ji mu jàpp sama loxo di ma womat tafaa mi bi nga xamee ne laaj nañu leen ñu wax papa ji lañ jëkk laaj mu wax ñu laaj taala mu wax ñu laaj imam mu wax ñu laaj bas mu wax gendarme ma góor gi maanaam man ma yow yow daal yow bas nee na yow yow yaa ko mayoon parcelle bi man ko waaw man ma ci naka man ko damaa ma ay moroomam dañ maa ñaan ma may leen ku ne tabax na kee tabax na kee terrasse na kee dëkk na mu def sa benn parcelle ma ñaan ko ne moom école la ci bëgg ma ne ko ñi ma ñaan ñëpp yaa ma gënal kon man nii laa ko maye ah, kon loolu leer na man ko waaw nii laa ko maye de. léegi ba ngeen génnee police leen benn papier pour wan ne ni pour kon man ngeen a jubboo waxtaan leen mm-hmm. su ngeen jubboo fii du ngeen ci sonn du ma ci sonn. Mm-hmm. wax wax wax wax wax moom gendarmerie de gars yi ni ko waat naa ci yàlla ni duñu duñu duñu bàyyi nun d'accord nun waa dëkk ba noo ko moom ah, noonu noonu la ko paa bi mayoon waaw gendarme baa ngi toog nii la leen wax muy leen moomu leen ko kii moo ko moom mu ni kii moo la ko may ma ne ko mayu ma leen ko ñoom mosu ñëw man ñaan ma ci kanam police ci kanam gendarme bi waaw waaw ma ne ko mayu mayu ma leen ko tey mayu ma leen ko suba mayu ma leen gannaaw suba mhm. man mi maa ko moom bas mii laa ko may gendarme bi nii nag gendarme bi ni ah, ko ah mu ne kon nag bàyyi leen ko xanaa yéen du ngeen ay jullit lii la ca teg gendarme bi ah ni ko xanaa yéen du ngeen ay jullit mos ngeen ay jullit buy tere jàkka ñu ne ko waat naa ci yàlla ay jullit mu ne bu ngeen dee ay jullit waat leen ku ne làmb sa bos jéene ay xasaayit muy leen lii ay xasaayit yi du du du du du kaamil moom gendarme bi daal di ubbi gaal gi génn kaamil bu ngeen dee waat waat leen fii ñu ne cel mu ne kon jóg leen papa ji eh, taala di kon nag nan waxtaan ndax jubboo taala ci boppam de bas eh, papa ji ak imam ñun ñun d'accord ñu tey d'accord ñu ëllëg fii ba gendarme fii ba plaqueloo na na na àpp ko fa. kon ñoom dañ ko waajoon bu la mun a gendarme bi ne ko ah kon plaqué leen ngeen soxla kon dinaa leen bindal kayit nag ngeen dem tribunal. est-ce que dem ngeen. nu toog ba nu toog ren. Mhm. ba ca diwén sa. Mhm. déedéet nu toog ba am eh, ñetti weer. ma kël calcule ko muy ñetti weer ma toog fii ba yàgg heure bii mu woo ma ne ma su fekkee damaa woo. moom moom waaw. ma daal di ànd ak moom ak i apprenti am ak ndiyaayam. heure bii keroog noo nga Pambal. su fi bi mu génn tëli yam ci oto bi fekk oto bi fees dellu da nga ni voilà comment lii lan la bas ni ba maa la wuy si de yaa ma woo wuy si ndax nee nga waa dëkk bi dañ faa ñëw kalaame la ne da ngay liggéey fañ la tere woon te da nga am da ngay def histoire mu ne ko man defuma histoire de dama lay xamal ne tey kii ma àndal mooy borom place ba mu ne ko woo recevoir lu ma ko recevoir recevoir lu ma ñu ñu àndal kenn laa recevoir muy yow yaak sa nijaay bas dugg ci biir waaw moom su préfet de moo nijaayam ñu dugg ci biir di Abdou Niang ñu wax a wax a wax wax wax ba génn mën ma suñu àll ma ne ko gay mën ma nen ñibbi ma ne ko la pare ngeen mën ma su préfet ne danaa fa ñëw talaata pire réunion mm-hmm. su ma ñëwee dinaa fa ak ba seet affaire ba ba xam nu mu demee est-ce que préfet bi ñëw na. su préfet ñëw na. gis affaire bi ban ba tisbaar nuy julli tisbaar may añ fii ndaw jóge kër bas ni ma kaay ma dikk ba ma ñëwee jokket raxasu sama doom bi tafaa ni ma bàyyi demal julli ñaar rakk bala ngaa dem. mu dugg sama néeg julli naa ñaar ngaa ba sama kurus ba ma ngaa sama kurus taxaw ci perong bi bas ëgg si ne ma dañ laa yàkkamti kaay wuyu. oto su ngi taxaw fii ma daal di ànd ak sama doom mu jàmm sama loxo woomat ma ma yéeg ci ko ba ma ne cëpp fekk naa ñoom ñëpp ñu toog ci ëttu bas ci diggante bi de ku ne yor sa sees toog su préfet ne voilà góor gi yow lan soxla na asamaan si nag neexul waaye lii lu lay doyee mooy lee lenn ma ne ma ne ma leen noonu naa fa ñëw talaata ma ànd ma ak mairie su euh, action mairie Abdou Ba ma bëgg nag nga nga leeral ma ci seen terrain bi ba xam euh, terrain bi nga mayoon waa dëkk bi. Euh, nga wax ma nu mu demee man ko déedéet yow yaa juum am ñoo juum nii laa ko xasi préfet de mun naa man ko kon da ngaa juum mun ma ah, déet man juum ma sama liggéey laay def man ko waaw wax nga dëgg sa liggéey ngay def waaye may tam man ko boo ma laajee ma wax la moo ma teeree ba nu mu demee man ko teebee man bas mii moo ko ñaan si jamono yi cinq heures mu jógee jiite fekk ma fa ma may ko mu tabax ci école am di di dem di dem di dem ba ren ji ba ba ren ji mu xelam nekk ci defar fi jàkka mu ñaan ma ko ni ma daa terrain bi li des ci terrain bi tama tama matub kalaas daa koy def jàkk man ko am nga ci ndigal mun maa man ko lii ba mu commencé ñu ñu tere ko ñoom waa dëkk bi fekk ko fa ba ñu ko ñu bëgg ba ñu bëggee ko mun naa boo ci weer wee lan dem gendarmerie bañ nu laajee ko moom ma ne ko moom mun noo ko moom ne ko juróom-ñaari parcelle yoo xam ne maa moom ci kenn suuf si la damaa béyatul parce que samay bët daa neexul 2008 ba tey léegi comme biyituma nag ta ñu ngi ko ges ay kàmb guddi ma maye ko am ci tuyaaba mu ne ma ah ma ne man ah ma ah yow kon yaa ko moom ma ne ko maa ko moom mu Ba kii excellent mu ne ko naam mu ne ko dingali papa wax ñëpp a ngi toog de Abdou ma ne ko dégg naa ko mun ne ko bindal mu ne ma góor gi am na am nga dantine ma ne ko waaw bi ma defee sama loxo nii daal di rejet dante mi tàllal ko nii mu daal ni su teet ndox mi dant bi daa tooy su préfet na ni voilà lan doon ñaan yàlla yàlla may na jóg leen dem nii la fi génne nii la fi jógee waxaatul waxaatul kenn waxatul ñu jóg dem man ma toog te ba tooy maak bas nu dugg ci néeg bas ba mu sewetee nu dugg ci néeg bi añ maag sama doom ji oto bas moo ma andi ba ci ëtt bi ma waa ci toog déggaatuma ci dara déggaatuma ci dara yaa ngi dégg de ba nu am lu mat ñaari weer ma toog ba yàgg fii sama kër appareil bi sonné ñu may woy bàyyi Aliou Aliou Konté ma ne mu ma koo ñu wax pare kilo Sané moo la soxla ma ne ko ah mun naa man ko mbaa jàmm la man ma jàmm dong la boo ñëwee Thiès ajjuma na nga laajte parakilo caane bureau waaw ci kaw la ne man ko loolu baax na ma toog ba ajjuma alxames bas ñëw ne ma mare woon nañ ma jox nañ ma kayit man ko ah man ma nee damay wujji Thiès comme nag yaa ma doon gunge te yaa bi daa bëgg nu dem nga seerewaat ma man ko nan ànd ma daal di yéegaat ci bi ànd ak moom ak ndi yaayam Abdou Niang kon dem ngeen ñetti yoon. muy ñetti muy ñetti yoon ñaari sant ñaari yoonu gendarmerie ak benn pël benn yoonu ak benn yoonu ak ñëw préfet ak boobee mu ñetti yoon. waaw ba nu àggee nu toog ba une heure moyen palakiroo ni waaw yéen ana ñi ngeen àndal Abdou Niang ni ko ah mu ne yéen doo nga ànd mu ne ki ñuy wax Taali Jéey ak Mor Wad ak euh, ki Papa Jéey Abdou ne ah ma lay ñooñu gisuma xaa dëkkuñu ci dëkk ba am na donc wala ci dëkk ba dëkk ba lañ dëkk de waaw man calcul man daal woo nga ma ñëw naa bi ma la wax heure bi ma mën ko ko àndal mën ko compté mi laa àndal borom place bi laa àndal ak mu daal di jël appareil bi daal di woo action bi ne ko wool ma papa ji mu woo ko mu wuyu ko wool ma Mor Mbaye mu woo ko mu wuyu mën ko wool ma kii nu mu tuddati Talla ji mu woo ko ñu wax ñu wax ñu wax ñu wax ñu wax ci seen appareil baa mu ne ah voilà jug leen ñibbi nee nañu kat ñoom mënuñoo ñëw tey parce que dañoo am ngénte. moom préfet bi moom déedéet moom euh, procureur Sané mu daal ah, wàccat est-ce que lay daal di dem génn jël suñuy suñuy suñuy suñuy identité su daal di ñibbi jël suñu kalandoo ñibbi. bin bin dikkii fii mi bés bu ajjuma nu añ ba pare toog toog toog mu ne bu ajjuma bu àllarba tey la ajjuma samedi dimanche altine talaata ba yéen ku manqué dinaa la jël si. ñu daal dikk toog ba àllarba jotee nu xëyati jël ab kalandoo mu taxaw fii nu yéeg ci dem ba Njaasaan mu oote ne ana Basiru Mbay bas ne ko maa ngi ne mu ne borom oto bi taxawal borom oto bi taxawal da ngeen doon ñëw ci man tey maanaam mu ne ko toog leen ba àjjuma damaa génn moom moom moom pare ki bi de nu tourné waat ak sunu oto ñibbisi keroog ma jaar poste dafa seet sama bursu ñu ne ma bursu amul tey ma ñibbisi toog ba ca àjjuma jël nu xëy fii. jëlaat kalandoom ban dewee yéeg ca kaw laaj su parce que ñu agsi gul nu toog a toog ba yàgg ñoom ñu daal agsi ñoom itam bi ñu agsee ñu toog ñoom ñoo ngi wax man gisuma leen waaye ñii ñii ñii yor ay bët tey xool gis nañu leen ñu toog di waxtaan de nun comme ñoo dëkk ku ci wax nu xam sa baat ma xam dégg ci baatu papa ji baatu njaga ji baatu euh, borom dëkk bi chef de village bi boobu baatu taala baatu morwand ñu waxtaan ak ñoom ñu toog suñuy sees di toog di toog di toog di toog di toog baag bas ne ah lëf di mu ngi bëgg a naaj une heure mooy mu daal dugg ci mu daal di fëgg wala kii bi mu ne ah sëñ bi de ñun daanaka ñi fi nekk ñi fi nekk noonu yëpp dem na noo fee des mën naa mën ko xam naa wax dëgg yàlla heure bi daal day bëgg a naaj mu ne ko ah voilà waaw yéen yéen a jógee njee mën naa ah, waaw baax na xaaral dinaa leen rasaar toog toog toog baag mu daal di woote bas ñoo leen dugg naka nu dugg kenn ku ne toog naka nu toog mu daal di commencé laaj ana chef di village bi taala ni ko mu ngi nii ma ne ko kii góor gi mooy seef de village ma ne ko ah, waaw kii lu ngeen koy doyee ci chef de village kii gisul xamul mënul lu ngeen koy doyee ma ne ah, man mii de maa doon action am woote bu ñu woote ci Tiwaawan ak fu man doon man moom a yebal tey jii maay nag tey comme maay action am te man wax dëgg yàlla àgg na ci wax ji nag borom dëkk bee ko moom moo tax ma andi ko man ko góor gi yaa yooyu borom dëkk man ko affaire teere ba ne ma ne ma ko teere bi da ay parcelle la woon yoo xam ne dafaa yàgg def nii def naa def naa def naa def man ko ah man ko noonu a la demee man ah man ko noppil daal laaj taala mu wax mu laaj Mor Wade mu wax mu laaj Papa jii mu wax mu laaj Bas mu wax daal di mujj ci man ne ma góor gi yow ñii ñëpp wax nañu léegi affaire bi nag nu mu demee man ko ma daal ni mu demee moom ma ne ko moom mii moo ma ko ñaan moom Bas mu naa ma ne ko nag ma may ko ko ak takkusaan ma ma koy ma sama soxnaa ngi toog sama ñaari soxna ak saab taaw bu góor sama taaw na juróom fukki at ak ñaar ren man maa ma ne ko ne ko boobaa léegi nag dégguma ci lenn lu dul ba ma koy fondement daal lañ ko tàkkee ne ko yaa mu fii waa dëkk bi moo moom ñoo moom école yi te waa dëkk bi école bi ci pénc ma la ñu moom waaye ñaari école yi ba sa ko tabax te man mi maa ko mayoon place ba mun ma ah mun a mun ma ah, foofu moom ku ku ku neex nga may man foofu da amul këyit amul leen da ngay jubboog borom suuf sa rek ndax moom mi moom mu jam juróom-ñaari nit mën naa laa ko limal may naa leen fa. 2000 2014 ba tey mun naa man ko boobu fi mu ne nii moom kenn waxu ki dara ren daal bi mu si dugg ci jàkka ji ba mu si dugalee ci jàkka ji daal la ci man nag lii laa ci man man may naa ko ko mu naaw yéen xanaa kon yéen du ngeen julit jullit. moom préfet déedéet. procureur bi. ah moom yéen du ay jullit. jullit tere jàkka mun naa mën ko yow chef de village yow góor gii am na loo xam ne boo boo xaman dara bañ ko teree laata faa gendarmerie ñëw da nga leen war a woon ni leen kii li muy def lu baax la nañ ko bàyyi place bi ndax ñii fi may kenn ku ne la la neex nga tabax sa kër kon moom li ko neex lay tabax wax ko wax ko ilimaan ngeen ànd laajal ko waa dëkk ba lu waaye ni mu dimbalee ko waaye wul leen ko tere jàkk ab jullit tere jàkk yéen baaxu te tey baaxu leen ëllëg lii la palakisoor wax léegi kon papa su ma la déggee ci say kàddu kon yéen dem ngeen ci yoon fi ngeen war a jaar yëpp. dem fa dem nañ ca de. fa demee kon kon mën nañ ne yoon a defat liggéeyam. waaw yàlla. léegi dañoo bëgg nga dellu si tuuti rek ci papa ci ci ba nga yëgee. Hmm. ni boom nañ ki nga xam ne moom nga joxoon kii bi terrain yi. Hmm. ak fan la la fekk. ak yow ba nga yëgee ni terrain yaa ngi ko may ñu ngi ko bëgg na bi ma yëgee ni boom nañu ko damaa génnoon ndax bi ma xëyee. dama xëy fii sama doom ñëwoo ma ci yoonu Tiwaawan côté ay numaan dëkk booy wax fajar je ci takkusaan ga trois euh, ca altine ja sama doom ñëw fii heure bi di jooy man ko lu xew man sama borom ko dama duma man ko ah man man ko léegi nag noo de mun ñëw naa pir ànd ak sama sama mag muy Cheikh Konte ma fa nekk sama doom ji ànd naa ak sama mag ba yóbbu na ma hôpital ba faju naa ba pare ma ne ko ah mun naa ma ne ko ah loolu doy na waar man ma damaa bëgg na nga ñëw ci kër ga bu subaa ñu lijjante mu fanaan asamaan seen ma xëy ànd ak seex mi mu yor otoom ak yaayam ak beneen magam bu góor jóge mbaraglu lu dem fa yendu fa. fa la ñu nekk di arrangé di arrangé ba midi fa la ñu ma téléphoné sama sët moo ma téléphoné maam ma ne ah, man ma kër gi di am na histoire man ku la xaw man ma bàyyi bas day fekk nañ ko ca fa doon tabaxe ba ba ba dóor nañ ko fa ba mu ba mu ba mu ba mu gaañu ma ne ko gaañu métti man ma waaw waaw foofee sama dund maa daal jeex takk xamatuma ci dara falaa ne jaxasoo jaxasoo jaxasoo ba six heures ba ma jaxasoo ba six heures doomi borom kër ga jël ma ci otoom ñëw ba ci tey bi mu wàcce ma ba ma ci ay sept heures moins kii sama seex konte sama doom ji moom seen jël sàpp sama loxo ne ma bàyyi di histoire am na kër ga ma ne ko ah man ma ba ban fa jógee daal fa yow bàyyi la fa loolu dikk fekk histoire sa bàyyi bàyyi bas daal ma ne ah man ma noonu rey nañu ko ma ne ko ah ma ne ah man waa dëkk ba daal ñoo ñoo ko rey ma ne ko ah kon ne def nañu erreur lii daal laajte mu métti ma lool nag ma ñëw ci kër gi nelawuma defuma dara dama toog sama lal bi yor sama wantaay ba sama set boobaag léegi daanaka saa bët yi budul bëccëg doo mën a nelaw sama xel mi ne lapp ci moom. mënuma faa dem sax yàlla xam ne ko ba bërki démb laa fa dem dem bu jub ko am ku ma woo ne ma am na benn journaliste bu la soxla ma dem di waxtaan ak dugg ma ci kër ga ba tey jii tey laay door dem ci kër gi ci kër gi ba may ba may dugg ci buntu kër gi rek maa ngi bëgg a daanu ñu njëkkan téye ma ndax boobu sama xol jeex na te jaxasoo naa lii daal am na ci. tey lan ngay wax ñi ne moom ñu jiite li hmm? nga moom te lan wax ñi nga ne ñoo jiite. li hmm. nga moom ñu ne duñ duñ ci yow par ah nit ki nag li mu moom yaakaar naa kenn waru koo jël si par force li mu moom kenn waru koo ci loxoom jël ci ay loxoom far for yoon am na waaw. nga wax kay moo ci yoon moom bu defoon liggéey fa saase fa saase bi gendarmerie yi bindi loole ba mu dem tribunal ba nu àgg waa tribunal moo waral ñoo waral liggéey seen liggéey dikk nii fii kii ko moom nañ ko bàyyi moom ndax ñi fi nekk ñëpp kenn ku nekk defar nga sa kër kon moom day defar këram waaye topp ñu loola di ko di ko di ndigli si ba lii am. jërëjëf xanaa sant yàlla ak yonent bi ak sëriñ Tuubaa gi leen sant di ñaan yàlla na xam ne lii naqar na ma tey naqar na ma ëllëg te du ma neex mukk nag te ñu ko def tey a ah, amee nañ ñu àqale man mii de amee nañ ma àq ndax liñ ma woote mënu maa dem mënu maa dox mënu maa dikk. saa bu ma jëm dañu may womba sama loxo bi ñu may yéegloo ay gendarmerie ak ak ak tribunal neexu ma fa kanam yàlla naqari na ma trop mënu ma ci nag dara waaye nag bàyyi naa leen yàlla barka sëñ Tuubaa asalaam ngeen baal loo pour ànd ak moom ànd ak xam ne ba la fa la des kay moom bu ko mënee terrasse ñu terrasse ko comme moo ko moom ay morom moom déggu li ma la ñem dendal kenn am ku ne am na sa kër ku am na fa koo xam ne terrasse na ba pare bu yàgg ba dëkk ñi ko lu nekk waaye du ko dafa neex xam nga bu fekkoon ne kenn laa fa muyul sax muy benn tabax boobu nga mën nañoo soow ni laneen la waaye comme ay nit a fa juróom man juróom-ñaar mën naa leen limal seeni kër a nga fa te sama suuf la kon ne da ngaa dëkkee la la neex moom la ko neex la doon la doon lëf soxul loo dëkk tabax la la soxla loola kay bu ko tabaxee ci commencement ba ba mu commencé damay tabax école te ñamu te ña am ña fa am amuñu këyit amuñu tabax nañu la war la waran buur mooy waax ko tànkam dikk taxawal leen ni leen dina tabax li muy war a tabax koo fa fekk ma jàpp la duma la loolu la ñu war a def dañ koo deful waaw